fii ci diwaanu ndakaaru naam nemmeeku nañu ne démb yamook dibeer di bés bu ñu war a noppaliku administration bu Sénégal bankul loxoom lépp rek ngir liggéey jëm ci waajtaayu élection présidentielle bi ñu war a amal atum 2024 conseil constitutionnel ubbi na ay buntam ngir dalal mandataireu candidat yi bëgg a bokk ci bile jongante Cheikh Ahmed Tidiane Youm di secrétaire général bu parti de l'unité et du rassemblement mi ngi di kat ci solos ndogal bi lépp rek jëm ci respecter calendrier électoral bi. su fekkoon ne dañu ne dañuy décaler dépôt bi wala date limite de dépôt bi dañ koy décoller ba biir semaine bi dafa dafay. Euh, euh, dafay indi décalage ci calendrier républicain bi ci processus électoral bi Euh, donc loolu nekk na loo xam ne nii lu am solo la baax na euh, bésu week-end bi ak jour de férié ñu ubbi pour recevoir parti yi nga xam ne nii bëgg nañ wala coalition yi nga xam ne nii bëgg nañ candidat yi ci élection yi di ñëw. kii di Amadou Sow di mandataire coalition Abdourahmane 2024 jàpp na ne lu ni mel doon na lu jaadu ndaxte jamono moo ko laaj. mbir la boo xamante ne élection présidentielle du ay caaxaan te cinq ans lay am par cinq ans lay am benn yoon le fait que ñoom ñu liggéey benn week-end prolongé dañ koy rafetlu bu baax parce que dina permettre à tous les candidats pare seen candidature dossier ñëw déposé ko ci dalul Cheikh Ahmed Tidiane Youm jàpp ne bi la décision bàyyeekoo ci conseil constitutionnel doon na lu ñu war a gën yaatal ndax jàpp na ne feet yi li ñuy am ci Sénégal dafa bari lool. du ma ne booy liggéey doo reposer wu il faut booy liggéey nga mën am jot pour reposer puisque c'est prévu même par la loi. waaye euh, administration bi ci li ñu xam euh, li ñuy liggéey bariwul. waaye loolu xam naa wax nañ ci bàyyi xel xool nu ñu ko gën mën a aménager ba nga xam ne nii euh, bés yu mel nii euh, ñu ñu di ko liggéey parfois. donte nemmeeku nañu ab taaxirlu bu yàgg lool ak itam liggéey bésub dimanche ci conseil constitutionnel amul benn jafe-jafe bu ñu nemeeku ci condition yi nga xamante ne ca la ñu war a déposer ay dossier jëm ci candidature yi lee ci biir bañ fa duggee def nañu moins d'une heure. waaw salle d'attente bi moo yàggoon mais boo xasee ba dugg tu fais moins d'une def nañ li ñu war a def par rapport ak dépôt candidature bi lépp lu nekkoon ay pièces liggéey nañ ci liggéey bu mucc ayib lépp lu nekkoon aussi euh, lu ñu loi bi santaane. pour ñu jëmmal candidature bi jëmmal nañ ko. tey jii itam di bésub ñaar fukki fanak juróom ci weeru décembre bésub Noël conseil constitutionnel di wéy di ubbi ay buntam mandataires yi di dem ngir déposer benn par benn seeni dossier de candidature lu ni mel mënees na ko wëyal ba bésub ñaar fukki fan ak juróom benn ci weeru décembre bu min wi jotee.